jouer sa partition. c'est d'accord avec vous. L'État mm-hmm. doit accompagner les entreprises. Euh, même les universités même la CESTI tout ça pour gën a yokk effectivement seen la formation parce que formation c'est une formation continue ah. parce que yéen ñaa ñaa ñu toog fii ça parce que vous dix ans quinze ans de métier que am leen droit de former da ngeen war former tous les jours. parce que mise à jour c'est obligatoire. c'est clair alors xam naa ni ñu cëralee presque moom wan ne ne. li mm-hmm. ñuy waxtaanee su suñuy mbir la mais mm-hmm. ñu avancer souvent vous criez partout que force reste à la loi que dañu ko war a appliquer maanaam lépp loo xam ne décision de justice la les décisions de justice doivent être appliquées loolu la ñuy dégg euh, pourquoi aujourd'hui violer peut-être une décision de justice entre guillemets parce que décision boo xam ne juge bi daf ko joxe muy Sabassi Faye réintégration Ousmane Sonko la direction générale des élections ne mënu ko def immédiatement dul dafay xaar le recours des des avocats de l'État pourquoi aujourd'hui cette décision yéen nan nan ndax ngeen def ko bon d'abord ce qu'il faut savoir c'est que d'abord c'est deux aspects premier aspect mooy d'abord décision bi qui a été rendue à Ziguinchor c'est une décision qui n'est pas conforme au droit premier point son bëggee non si son bëggee na si en profondeur deuxième point c'est l'avocat qui parle ah parce que moi je avocats yi Sonko avocats yi xam nañ xam naa bu baax la ñuy ñuy bind heureusement j'étais agent judiciaire d'État donc des deux côtés. de la PR aussi. ah bien sûr oui. et ministre de <laughs> que j'assume sur le point de la décision parce que ce qui se passe parce que foog ma ma ma développer ma expliquer bu mu leer lan moo xew li xew mooy nous sommes en matière administrative c'est-à-dire que c'est une décision de la DGE c'est une décision administrative loolu bu kenn fàtte. oui te décision administrative yëpp dafa am benn régime bu ñu leen di euh, comment ma xam naa ko mën a waxee en wolof ne benn di àtte. bu fekkee fekkee décision bi neexu la par exemple bu amee décision boo xam ne dañuy dañuy préfet jël décision d'interdire une marche wala préfet jël décision démolir sa kër wala DGE jël décision retirer ci liste c'est des décisions administratives yoo xamante ne daf lay porter préjudice régime bi yëpp mooy lan en général da ngay def recours la Cour mooy la chambre administrative de la Cour suprême. moom foog nga defee recours en annulation de la décision de d'une autorité administrative boo xam ne neexu la Walfadjri keroog quand j'ai pris l'arrêté pour la décision de de fermer Walfadjri pendant 30 jours ils ont fait un recours devant la cour suprême pour annuler demande l'annulation de ma décision donc régime bi mooy foog ngay dem ñu ñu demande annulation bi décision administrative elle est applicable immédiatement loolu c'est important ñu ñu xam ko décision administrative dès lors que elle est prise elle est applicable léegi yow citoyen bi bi nga xam décision bi arrangé la deux solutions nga am un da ngay def recours pour annulation pour demander l'annulation bi mais su recours boobu taxul décision bi continuer appliqué wu. bu hmm. jël décision bi génne la ci liste yi ça def nga recours que déci que que dañ koy dindi kenn ko dindi bu dee par exemple comme comme ñu la exemple yi ma joxe. Euh, jël nañ décision bu dee ordonnance nag moo am te juge voilà dissoute la dañ ma expliquer régime régime général. nga ñu comprendre li leer na maanaam même bu ñu déposé recours. décision. bi day continuer appliqué a arrêté arrêté décision mm. de marche. nga def déclaration de marche de décision administrative. Mm-hmm. boo bëggee yow def annulation bi da ngay def dem boo ko bëggee bloqué. da def non seulement recours normal mooy annulation bi mais foo yokk ci beneen recours. boo leen wooyee recours suspension. pour ne juge bi ah décision bi ma jox bi ma jox nii ah, daf may dafa dafa porter def naa annulation bi. mais aussi dugalaat naa beneen recours pour am suspension décision bi. Mhm. en attendant que ñu àtte ko sur le fond loolu mooy régime. décision administrative. dans ce cas oui dans ce est-ce que les avocats de Ousmane très bien donc loolu mooy principe bi un recours suspensif. xam loolu mooy principe bi pour hmm. sax la Cour suprême pour ma pour wax ji leer. Cour suprême buy xool décision suspension danaan la kaay def nga recours recours en d'accord mais day xool day teg ay est que am na urgence à arrêter la décision. s'il n'y a pas d'urgence vu le principe de continuité du moo tax ñu ñu permettre administration mu kon toujours def jël ay décision am décision am exécutable tout de suite parce que pour assurer la la continuité du service public bañ a bloquer administration bi loolu mooy principe bi donc Cour suprême bu bëggee suspendre sa décision bu ko bëggee bloquer day xool est-ce que y a urgence deuxièmement mu xool est-ce que yow am nga préjudice est-ce que am nga préjudice bu bu bu leer bu quasiment bu certain troisièmement mu xool est-ce que recours bi nga dugal en annulation boobu est-ce que les moyens yi nga soulever sont des moyens sérieux est-ce que argument yi nga joxe foofu c'est des arguments sérieux donc toujours deux recours nga war a dugal fekkee les moyens sont sérieux xaaral ma expliquer loolu yëpp di nga comprendre tout donc loolu mooy principe bi mu jox exemple benn terre à nga bëgg organiser tey lundi la mardi la nga bëgg organiser marche vendredi préfet jox la interdiction de la marche donc xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral Fatou que non xaaral ba xam expliquer ba pour le cas de Ziguinchor c'est une matière administrative mais yóbbu ko Ziguinchor pourquoi parce que Sonko fa lay inscrire le texte qui dit que foofu lañ ko war a juger c'est le juge du tribunal d'instance mm-hmm. c'est une procédure exceptionnelle parce que rare que juge tribunal d'instance ak euh, tribunal de grande instance yi juger des matières administratives d'accord maintenant léegi mm. c'est le même régime qui s'applique cest dans le principe c'est annulé et a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais avocats yi foofu dañoo juum. ñoom dañuy évoquer sax euh, article ils du code électoral. ñoom dañ koy wax mi ci code électoral. les décisions de justice s'appliquent immédiatement monsieur le ministre. attention attention attention. la article bi wax. ma ñëwal ci régime ba la expliqué léegi sur décision administrative. waaw mais expliqué comprendre nañu ko comprendre loo ko. parce que non comprendre mais parce mais que ñoom ils auraient dû demander. l' annulation dans la même question ils auraient dû demander l' annulation. d' la réintégration Ousmane Sonko nonobstant recours. ñoom bu ñu bëggoon ñoom tey jii ñu réintégrer Sonko dans la dans dans dans euh, au niveau du fichier. Mm-hmm. ils ont demander ça au juge juge annulel ma ko. juge ordonné la réintégration de Sonko. Mhm. juge ordonné la recours même s'il y a un recours de l'AJE. ordonné quand même nonobstant bi yow def moom lañ ci deful. bien sûr mais mais donc jëloon dee nag loolu amu bu fekkee la du code électoral bi wax ne décisions de justice s'appliquent directement s'impose immédiatement bien sûr à tout le monde mais pourquoi mu am lu ñuy exécution provisoire des décisions par exemple mu ngi juge en matière pénale par exemple ñu juge la. condamné la je pense ñaan ma ko yàlla ah mais ñu la par exemple à cinq cent mille francs euh, de dommages et intérêts nga def appel mais le juge là dans la décision il dit ordonne l'exécution condamne telle personne à telle et ordonne l'exécution provisoire de la décision juge da ko def la c'est-à-dire que même si tu fais recours loolu mooy non sans recours mhm. mais même ba defee recours sax ba defee appel juge da imposer nga exécuté wu c'est le juge qui doit le décider le juge de Ziguinchor décision euh, la réintégration nonobstant recours. mais mais léegi amu ci est que léegi mais au sein de l' opinion nit ñi gisee wuñ ko doon. parce que dans le cas de Ousmane Sonko dañu ne exécution décision bi nekkul lu ñuy discuter. dañ ko ah. war a def. automatiquement parce que DGE amul habilité pour mën a bañal loolu waa parce que surtout jox leen seen fiche de parrainage. l'administration est soumise au droit comme tout le monde. Mm -hmm. si le juge avait ordonné non seulement un l'annulation de la décision deuxièmement la réintégration non obstant recours c'est-à-dire que daf ko war daf ko daf koy. daf mais su ko ci mentionné wul nag mais donc ça veut dire que s'il y a un recours. le mhm. recours est suspensif. donc pour ce cas précis. bien sûr. mais il faut mu am il faut mu am une décision définitive. sur la question. pour mu mën a. Euh, réintégrer alors est-ce que ce que direction générale des élections wax na justifié wu wala di bind communiqué di wax quoi que ce soit par rapport à cette décision li nga expliqué ci droit euh, dégg nañu ko maintenant c'est à l'appréciation des téléspectateurs et puis des professionnels yi nga xam ne mais est-ce que direction générale des élections moom war na génne communiqué di justifié wu euh, bugguma dugal génnee est-ce que moom dafa war di nangu dugal parce que bu dugalee le recours na tax mu génnee ko ba jox fiche de non xam nga tey jii je pense que moi je salue la l' action de la DGE. E. Ah pourquoi oui parce que c' la communication faut mu expliquer. comme dafa lë comme ñi ñu lëmbal yi kenn xamatul fu dëgg bi nekk ak fu nga xamante ne euh, c' de la manipulation xamuñu. DGE a bien fait de communiquer la position c' important ñu leeral askan bi euh, lan mooy position DGE sur la question c' important moi je pense que bu d' ñu bëri nañu ko war def d' très souvent. boo amee coow amee génnal nga wax expliquer askan bi ñu comprendre parce que boo waxul parce que administration nga parce que ministre nga doo wax donc ce qui fait que perdre la face deux fois da nga dem bañ joxe fiche de parrainage à Ousmane Sonko euh, Cour suprême oui confirmer cette décision le tribunal d'instance de de Ziguinchor euh, dindi décision bi nga ñëwaat encore war ko ko jox bañaat ko di di justifier encore. ci ay mais nee naa la y a pas une obligation légale. pour mu inscrire son Sonko tant que recours bi jeexul loolu c'est la loi man xam-xam laay wax waxuma ay wax fat parloo xam-xam laay wax. tey DGE si la si la décision Ziguinchor bi su ko doon imposer mu inscrire ko immédiatement daf koy def amul choix. waaw mais quatre agrégés yi nga xam ne dañu signé benn missive. Hmm. li ñu wax mooy amul benn argument juridique boo xam ne DGE évoqué na ko ci. communiqué dañuy wax seen position en tant que peut-être dañuy wax leen neex moo tax que la décision de Ziguinchor bi n'impose pas. à la DGE de réinscrire Ousmane Sonko. mais ñoom ñu parce que la décision ne le dit pas. le recours n'est pas suspensif. Mhm. parce que boo parce que droit aussi nan laa noon droit c'est dynamique. parce que boo parce que boo ñoom pourquoi ñu naan recours c'est pas suspensif. qu'est-ce que la ñuy def dañuy dem ci ci ci la loi sur la Cour suprême. Mhm. génne test article 36 article 74 ne bon comme joxe mmh. ces quatre cas comme quatre cas nekku ci rek donc lële bokku ci alors fàtte nañu que nous sommes dans le régime des actes administratifs mmh. lu ma expliqué sànq moo tax ma c'était important bu baax euh, Fatou mmh. c'est le régime des actes administratifs principe mooy exécution exception mooy suspendre pourquoi parce que pour respecter le principe de continuité du service public donc du acte administratif boo gis ça parce que c'est à Ziguinchor que ce n'est pas un acte administratif régime c'est loolu loolu c'est pas du droit pénal. oui c'est pas du droit civil. c'est du droit administratif. que le juge am nañu jàpp ne dañ ko mayoon dañ ko administratif le recours n'est pas suspensif. pardon. en matière administratif le recours n'est pas suspensif loolu laa wax donc ça veut dire que e, décision bu c'est euh, quelle que soit la décision du tribunal de de c'est pas suspensif mënul mënul bloquer décision administration bi. non mais mais DGE. yow yow justification bi nga joxe bokkul. moom recours bi nga xam ne les avocats de l'État. war nañu ko dugal moom lay xaar pour quand même mooy statuer sur la question. non c'est différent aujourd'hui du recours bi nga wax ne nonobstant aujourd'hui que le recours est suspensif moom moo tax joxuñu ko. xam nga oui foog ñu comprendre dañuy jàppale recours suspensif poñtañ tuul ma bu baax léegi sénégalais yi nañ koo miin war nañ ko miin parce que aujourd'hui tey cette semaine là quand même bu ñu nga loolu du droit pénal non du nit lañ condamné te du droit pénal du droit civil du affaire de divorce du affaire de suuf du affaire non du loolu c'est du droit administratif mais exceptionnellement le code électoral a donné compétence au juge du tribunal d'instance pour juger les questions d'inscription sur les listes dans ton lieu dans votre lieu d'inscription loolu dong la loolu dong moo tax moo tax affaire bi dem Ziguinchor mais en mais régime bi yëpp régime de droit la c'est important article l bi waaw léegi L47 te dis simplement euh, il te donne un délai il te donne un délai de cinq jours d'ailleurs la pour vous montrer que le principe c'est la continuité de l'administration bu jëlee décision xoolal délai ni ça ça ça loolu rek mooy prouver ne que c' est pas boo boo defee recours recours mënu recours bi day c' est suspensif. le contenu voilà de l' article L 47. waaw parce que boo xoolee boo xoolee ñu dañuy jox délai 5 jours. Mm-hmm. Mm-hmm. pourquoi parce que boo ñu jotee notification rek tu as délai de 5 jours pour euh, euh, def def sa recours. boo defee sa recours bi ñu ko daan bi ñu ko daan décision bi tu as délai de 10 jours pour saisir la cour la la cour suprême. Mm-hmm. dañuy dañuy gàttal délai parce que on sait on sait qu' on est en matière électorale. il y a d' urgence à trancher le litige. d'ailleurs sax ils sont hors délai ñoom ils sont hors délai donc décision bi dañ ko jël 30 30 et les avocats de l'État ne sont pas hors délai euh, décision bi dañ ko jël le 30 août ils ont fait le recours le 4 octobre un mois après la décision. Et les avocats de l'État, c'est celui qui a introduit un recours aujourd'hui. Oui, recours contre la décision du Ziguinchor. De grande instance. dans, les, délais. Mais c'était pour, dire que, Parce le jeudi passé, aujourd'hui. Cinq jours ouvrables. Cinq jours ouvrables. Ouais, sur le fond, mm. dossier Ziguinchor, c'est un dossier pas prospéré pour deux choses. Bon, pour la position du juge. Mm. Ah oui. Ah oui? Parce que boo qui juge. Vous doutez de sa neutralité? Mais bien sûr, il ne devait pas juger cette affaire. Pourquoi? Il devait se désister de cette affaire et se recuser, surtout s'auto-recuser. Pourquoi? Moi pour lan. dañoo ne bon booy at dans le dans le statut parce que droit yi dynamique ah foog nga jël fii jël fële jël boo demee ci statut des des magistrats on dit que yow ci tribunal bi yow ba rekk amoo droit bokk même composition ak sa frère sa cousine sa nièce. sa parent dans l'affaire ñiy àtte avocat yi nekk en face de yow kenn su ñoom waru nekk sa parent sa jabar wala sa neveu wala sa nièce sa parent. pourquoi ñu def loolu yëpp. après am sa relation ak les parties waru am waroo am relation de parenté ak parti yi. fu ne même pas le droit même même boo nekkul. mais les parties xaaral même boo nekkul ay parents sax. Hmm. amul leen sax droit déjeuner ensemble avant l'audience boire un verre ensemble c'est interdit. par l'article 223 du code du code de procédure civile léegi nag la question majeure bi am solo mooy ban mooy lan mooy les parti au procès. c'est ça partie ñan la te loolu gën a baax ñu baax ñu déglu moom parce que bu ñu droit dafa dynamique bu ñu ne les parti au procès c'est pas Ousmane Sonko lui en personne et l'État du Sénégal représenté par par par les gens judiciaires de l'État Ousmane Sonko est maire de Ziguinchor le frère du juge Faye. est adjoint au maire de Ziguinchor nous sommes dans une matière électorale il c'est une question d'élection le frère du, du, du juge est un politicien un acteur politique de haut rang un conseiller municipal de Ziguinchor un adjoint au au, au Sonko moom le frère la il a tout à fait intérêt à ce que son leader bokk ci élection loolu kenn mënu ko dindi. waaw xaar xaar ma xaar ma ñëw de xaaral. mais est-ce que rapport professionnel ak rapport familial bokkul. kenn mënul dindi kenn mënul dindi. non mais mais frère frère juge bi xaaral ko doxalee noonu duñu yegg foo xamante naa la jox naa la jox exemple yu bëri naa la jox exemple yu bëri dinaa la jox exemple yu wala ils sont quand le frère du juge le frère du juge Sabassi Faye adjoint au maire Ousmane Sonko la. 16e adjoint au maire e adjoint au conseil municipal et membre du bureau municipal. oui euh, d'accord mais léegi kooku moom Ousmane Sonko bokkuñu même intérêt dans ces questions électorales si le juge devait juger un divorce y a pas de problème parce qu'il y a pas de lien mais bu dee élection la wax élection la ñuy wax son frère est membre de l'ancien PASTEF adjoint au maire de de de Ziguinchor dont l'inscription est contestée mais am na ci a un intérêt. loolu waaye un intérêt direct. Hmm. soo gisee ñu ñu nii rek ñuy wax loolu. mais nañ am bon fois rek ci. la preuve ma jox benn exemple. Hmm. keroog gis fi keroog dans le dossier Ousmane Sonko lorsque le juge Hippolyte Faye Hippolyte euh, comment dire Ndeye hmm. devait juger il s'est auto autodésaisi du dossier pourquoi parce que sa sœur est membre du gouvernement ministre de la République donc xam nga loolu déjà loolu mooy mooy attitude d'un juge c'est-à-dire que yow le le code le statut des le code de procédure pénale de procédure civile ak pénale yépp en la matière en matière de récusation yooyu soo gisee soo gisee def yooyu xaar xaar rek soo gisee def yooyu parce que dañu bañ par parloo am ci très bien maintenant juge fa même même kër même kër que conseiller que conseil municipal que adjoint au maire de Sonko on il pour mu trancher question électoral bi nga xamante ne on parle de l'inscription ou non de Ousmane Sonko mais l'argument de l'agent judiciaire de l'État mais monsieur le ministre agent judiciaire de l'État mais agent c'est une faute disciplinaire